arena hebtu niunta bisa gol Sénégalais arena xam naa sax ku ko waxee tam ngeen kii ku mel ni mbay gi seetaan ngeen ko fii defe naa waaye boobu naa ko muy wax wax yoo xam koy yal na ko yàlla yërëm rek kii muy def noonu naan nangam parce que bu taxee naan xaw ma bëre mais ñun ñun waaw moom moom xam nga nag bëgguñu moom mbay guy maa ko gën a ris su bëre a ris man bi ma samay combat mbapat samay combat arrêt ñi ma bëreel xam nga xam nga leen ci làmb dumbul laa bëreel bàyyi na làmb dem États-Unis bien sûr 12 ans 12 ans waaw amoon nga ko bu baax booy get ndar booy get ndar ma ca Saint-Louis waaw su njata su njata bu bës ko sow ca jàmm sele mele bu ngay xoox waaw njambaan 2 benn bu moo école it Mor Fadam te bi may daan Sundiata neuf victoire la taxawee daanuwul bi may daan njambaan 2 sept victoire la tegale daanuwul Libidoor moo ma daan ak ma jaxate ci kalaaf bi ak njaaxum moo wax la ne la kon moom bu taxawee naan ay làmb nii dugg na fii Samba Mata Ndiaye dafa nekk ci li ko neex rek. non mbay daa wax la mu bëgg. nee na bëriwul de bëriwul li simple la nga doon def na ko. ba pare mais nangul de Mbaye. mais fi mu ne xamal moo tax naa ko ko. waaw gis nga fi mu ne nii maanaam boo toogee maanaam am victoire. toog ne bëriw ma ñii. am nga ci droit ñi ko ko conseil nag naxuñu ko parce que mbëru simple yi ñoo ko man leer yéen a mën yéen yéen a mën laa ki gën a tuutee ka man mbay bëreem bu ñu ko observé ñun ci làmb simple bu ñëwee day mel ni kuy def sixième daggitu kay demul sax BFM. non yow nag yab nga mbay. bëreem ay jàppal la jàpp loo ci mën dégg ñi ko conseil loolu. waaw naxuñu ko de. naxuñu ko de. naxuñu ko de gaa yëpp xam na ne mburu simple ñoo ko mën. kum ci jël ñu ko daan ko. non moom na ne dafa néew ñu koy wàngar ñeente ay yooyu dafa néewul maanaam di wàngar. waaw mooy parce que dañu ne yéen tey ku fi daan tey suba boo demee fee ñu ngar ñi la moom la ne yooyu newu ci moom benn da ngeen di samp jaaga xeex bëri mu daan la demu yoonam waaw moom nag ku mu sàmbati mbëri sàmbal ko daan ko ak nu mu mënti demee ku mu sàmbal dañ koy duma daan ko wax di wax rek mbay guy ku mu xeexal ku ah, mu xeexal mbay di bëri di daan mais mbay guy gi moom comme maam bàll la daan bërki di maam bàll mbër mu ndaw barki laa lay wax nii ah. mbay guy gi bis bu fi sampee jaaga ak mbëru sembul ñu dóor ko ba mu wane ginnaaw dem wane ginnaaw génn làmb ci parce que déggoo la gars yi ko dàq jafanu ñoo ko ëpp contact ñoo ko dàq physique dàq ko yéenu lu diis. ëpp ak leen di seetaan Mbaye de lu ko ci waaye di wax na nga ko xam ndax day tontu ba bés la te itam fi ne nag bés la yore te mu ngi bëre mu ngi daax. tontukat la xam naa ko tontukat la moom moom day xaar ko wax mu tontu laa ngi demee. waaw parce que moom moo toog. ànd ko daal tontu la loolu tontu la bëriwuma ay. mbëru simple yi waxee mu ne mbiru simple yi mbiru simple mais nuñ ko mën a kenn ko ci daal daal da ngaa jarul déet lu may nuñ koy daane la kilim bi sedd xam di wax dafa yomb bu dee loolu ay tonn de man nekkuma ci na jël sama ko daan moom ci télé lay toog di wax rek mais buñ jàkkaarloo du ngaan billaay wallaay tallaay yow lu li mbay guy gi fils ba di ko teree wax ngaan dama ko ëpp doole gën <laughs> ko ah. nekk xale dàq koo bëre yaa wax lii. maa ko doole gën ko nekk xale daa bëre te bu jël sa avance bu ñëwee moon ko ko. du ñu taxaw sax. dépassé ni ni mu ni yebee nii naan numéro simple nii du daal lu bëre waale fii sa balle. yow daal gëm nga ne mbay gu gi dem ko mbay gu daal bu dee dëgg la na jël sa avance ñu bëre. xool caméra man bële la ngay wax mbay nga fee jàkkaarloo yow xool ko. waaw mbay may dama ne. boo paree mbër jël sama ñu bëre ma duma la daan la ci ay minute ay seconde la ma duma ko daan moom dafa bëri wax comme li ma la wax rek day toog ci télé rajo yi kilim bi sedd xam nga rek muy nekk di ndeelu bu buñ jëlee na xam ne lépp dëgg la. ah baax na. waaye xam day ko soo soo maal la xam daa ko. day bëri de. waaye ma de soo maal mais gis naa la fi nga xuloo feeg buur siin ba bëgg a xeex est-ce que buur siin lu ngeen jotee buur siin bu bawal. buur siin kay daa nekk tooñkat rek. ah déet waaw ñun jotee maa ngoom lenn buur siin. waaw doon tëkk ay jamono. bu mooy tëkk du ma ko faale. mu ñëw stade lu ne mu dugg ci nangam ak nangam xam nga lu gën a bon nag ci àdduna Babacar. di tëkku nit te buñ la indilee avance am doo ko jël. dañ ko yóbbul avance mu bañ sa avance. ah arène DKR ñi may dégg de nañ ko ne ko booy fay xëy jëlul làmb ji de. est-ce moo tax. waaw moom xam nga mën nga xalaat raw xam nga làmb. loolu moom laa man est-ce que xalaat. waaw xam naa ndeysaan moom loolu lay xalaat te mu xalaat ne daf maa raw wala yooyu noonu. Hmm. te nag wax dëgg fa yàlla moom bu dee ñemee na ma. ba war a nekk ci stade dépassé ma wala mu tëkku ma day jël sama avance rek mu nooy. foofoo koy nooyal la. barki borom njaareem buur siin gis nga bu dof dofloo. xoolal bu dof dofloo ba jël sama avance. li ma mën a xam ba mën a xam ba mën koo xam. mooy maanaam moom ak ñi koy ëmb ak ñi koy indeeg ñëpp kenn dootu ci nelaw te dinaa ko teg lu ko góor mës tey yéen ba mu juddoo ba tey. dinaa ko yéen lu ah, métti. barki wallaahi lazi laaw bu ma jëlee. du ma la song dinaa la dóor ba nga daanu ma jéggi la. lu wér laa koy wax li ma koy wax doful bu tëddee mook ñi koy indi ñoo ko gën a xam dinaa ko dóor ba mu daanu ma jéggi ko. yaa wax li yëpp Boury wallaahi bu ko ñemee bu subaa man Boury bu ma fayul dara sax bu bëggoon rek bu ma fay dara barki Muhammad ma jël ko parce que li ma defee esaat di ma di jéem a indiscipliné. mais lu mu la def ma xamal defante rek booy. non defante wuñu parce que Boury defante la rek. non dañ ma toog keroog dañuy coow noonu waa CEDE wàcc nañ ci yaa ngi di wax li ngay wax nii kii wax na fi mbay guy gi ni mu ko wax. mais waxante moom waxante la rek. waaw baax na jàkkaarloo mbay guy gi mbay guy moo ñàkk a da ko posé question. waaw léegi da nga ko posé question sa combat ne bëriwuma moom. ah ma ci dama xam ne xam ne ko ci fekk. mais am na droit de bëriwul ak moom nag. waaw mais moom laa xam nga dafa xam ne ko ci fekk nit ki boo xam ne boo jëlee kii mu duma la daan doo ko jël. waaw hmm. ah, moom loolu la xam. am na solo hmm. kon gars yi <laughs> macha allah waxtaan bi neex naa Balde kon xam naa daal fii lañ koy yemale waxtaan wi am na solo mais balaa muy tëj li ma leen di mujj laaj mooy làmb ju ubbi na macha allah jag sa tegaat na 3 millions dimanche bii ñu jëm stade euh, Iba Mar Diop mu ngi waaj tamit premier janvier 11 millions incha allahu rabi 11 millions nag moom. 11 <laughs> millions xam naa ne ku ci mayante kuñ ci jiina mayante ba nga mayante boo ñibbee say mbokk dañ laa war a lijjanti quoi ah. waaw loolu lay rey ren di nga. dimanche amaat ma waaw yàlla yàlla def jàmm rek. di nga ñëw. yàlla yàlla def jàmm rek di nga ñëw. ah ñun dañoo am staff rek ñu ngi si ginnaaw gars yi gis nga de kenn du ci wax na dinaa ñëw doo dégg ku la ne ci ne dinaa ñëw dimanche bëri si nit simple. <laughs> combat avec Fra moom dañuy laaj nañ ma jox diw. waaye lit simple bi ñoom ñëpp a ci yem koo ci ne Balde di nga Brésil di wax lit simple mu la noo garaaw bu baax. damaa baax sax mooy dañoo nekkatul ay mbëru ndaw aussi. waa xam naa waaw nekkuñ dañuy tëb tëb rek <laughs> dem ci làmb ni te <laughs> dañ leen di yebal voilà da ngaa ànd ak sa mbokk ñu ne demal fii bàyyi fi def li xam nga. waaw ñu ngi naan Jackson teg na ñetti million moom di xaar waaw Jax dañ koy ñaanal rek. waaw waaw di nga wax mu koy di nga ñaanal mu koy. Jax tam lu ngeen koy wax. di ko ñaanal mu koy mën chaque at rek. incha allah ak góor production bi nga njëkk a gagné trophée. moom tamit waaw moom tamit moom moom yàgg naa gagné. góor production ñu ko nuyu di ko ziar. waaw ñu koy ñaanal moom tamit jël naa lambam moom moom mooy loolu. ndaanaan la waaw góor production may nuyu promoteur simple yëpp ñoom Ablaye Diop sum production. waaw ñoom ñëpp ñu ngi ah, leen di bëggee ñu ngi leen di bëggee ñoom ah, léegi ñoom Ablaye Diop ñoom ñëpp ñu ngi leen di bëggee parce que ah. ñooñu dañuy dundal làmb ndax ay ndaw yoo xamante ni mm-hmm. entraîné nañ yor seen kattan mm-hmm. ngeen ne leen kaay leen bu leen agré bu leen xeex bu leen defal kaay leen ay millions ngi jëflante leen teg seen doole. ku gañe yóbbu yóbbu entraînement moom def ngeen ko ndax yii da ngi ñàkk rek. waaw ku nekk jël ku nekk jël yóbbu sa kër. <laughs> entraîné ngeen de <laughs> sa waaj amagul combat de garga. Mboose non amagul làmb. Mboose amagul combat ñu ngi koy ñu ngi koy ñaanal mi ngi mi ngi mi ngi États-Unis ci liggéey bi. Mhm. waaw ñu ngi koy ñaanal daal. Mhm. fi mu nekk yal na ko suñu borom defal jàmm. bu ñëwaatee su loxo jël combat defar waa ji dem yoonam. defar waa ji dem yoonam. soq itam ñu ngi doon wax combat ak franc loo ca wax. waa dara làmb la. Hmm. Hmm. Hmm. di ñaanal soq rek. li ci kanam yow yaa ngi ginnaaw raay ak ñoom soq ak ñoom jet jet li sax moom defe naa demaan États-Unis. waaw Jalle moom mi ngi États-Unis di ñaanal xam nga. yow ak booyel ñoom Batista numéro 2. yéen a Batista du foofu la ne ci yéen. waaw ñoom su may rakk lañ ko xam sa cosaan. ok. Batista su ma rakk la tas tas waaw tasit mooy borom jooy ya su ma jarbaat xale la quoi xale la ah, sa jaaw tas gis naa ko démb sax. waaw mi ngi woon a muy aalu rek. Mm, mi ngi a sustu bi kii daane. waaw ah, moom deret deret est laa dóor sax yow. <laughs> non laa la xam moom nit moom bu ànd ak. tas booy fayee ngi nii moo daan kii bu dimanche ngeen bul ñëw ndax dina ñëw ñoom ñëpp dinañ ñëw. ku ci am loolu naqari kay bu dimanche yi ñëwal arène ba fële Iba Mar booy fay day ñëw tas yaakaar <laughs> takkaatal sa ngeen booy la booy lay def tax dóor ko mais lu ngeen di tàggatoo yéen ñaar booy fay looy tàggoo waaw di di sant suma waa dëkk rek di sant ki ma àndal muy Moussa Fall waaw waaw waaw di sant Moussa Fall ak mm-hmm. waa staff booy fay jege waaw waa Saalum yëpp maa ngi leen di bëggee waa Siin mhm. waaw waa Kër Mbang Jaaw Daaru Kër Momar Xoreja mhm. Njoobeen Taaleen waa Dandaxul mhm. Jafe bëggee naa gaa yëpp waaw waa Siin yëpp maa ngi leen di bëggee waa Jaxaaw ñëpp maa ngi leen di bëggee waa Mbenn Goor bu baax a suma papa suma mag suma ci man ak waa Njaago ji maa ngi bëggee ñëpp ba Gàmbi waaw waa parcelle 1 ba 26 ginnaaw raay aw fay postu caaro yi gaa yëpp maa ngi leen di bëggee di bëggee Ibrahima Niang Sall Ngaari mhm. Babacar gaa yi ne ci staff bi ñëpp ve ndaw waaw Kalidou asam benn grand boo xamante dem moo ma jox oto ma indi ko mhm. accident mooy abdu policier moom bu ma jógee day sonn ci man loolu lay daj ci man mhm. Kalidou duwaañe maa ngi bëggee ñëpp waaw mën soo transitaire maa ngi siyaar gaa yëpp di bëggee ñëpp di la bëggee yow bu baax a baax waaw di bëggee gaa yëpp naan leen rafet na Sénégal yal na fi jàmm yàgg amiin takk ñaar xoolal fële non ñaare du boo takk de. loolu leer na loolu boo takk ñaare loolu moom. c'est kon Sira tëjal sa porte sànni sa caabi booy fay mooy sonné mbër looy tàggatoo fi nga baat leen. waaw xanaa di leen sant di gërëm rek. Mm-hmm. di ñaan télé bi nekk télé télé bu mag xam nga. Mm-hmm. waaw di nuyu ñu ma àndal ku su mel ni Sadibou. Mm-hmm. Jibel xam nga ak Lamine quoi. di nuyu suma papa. di ko ñaanal mu gudd fan xam nga ba fekkee suñu njëriñ ko mm. waaw di ko ñaanal moom day sonn si ñun mm. day jël alalam di ko def si ñun te soxloon suñu dërëm yàlla xam na ko ñun ñoo war di ko jox mais moom mooy jël xaalisam di ko def si waaw di nuyu aussi Papa Ndoura mm-hmm. Kaolack mm-hmm. moom tam day sonn si ñun day xam-xamam dooleem mm-hmm. lépp daal lay def si Aba aussi borom Touba moom démb dafa jóge Touba ñëw uniquement ngir mbapat ngir mbapat bi waaw xam nga ci guddi gi la dellu di ko nuyu di ko sant bu baax di gërëm di nuyu waa ginnaaw raay yëpp waa sibsi di nuyu suñu waa ikiri Mm-hmm. ama ku fa gën a mag ba ku fa gën a ndaw quoi mm-hmm. di nuyu ñëpp di nuyu waa Kaolack di nuyu suma fans club aussi mm-hmm. am Ndiaye xam nga bëj suuf rek daa maa ngi nuyu ñëpp ah, di nuyu suma mag aussi Babacar moom tam day sonn ci ñun xam nga def ñoo yéen day sonn ci ñun di nuyu ñëpp rek waaw di sant ñëpp gërëm ñëpp xam nga ku lim juum ko ku lim juum am na solo euh, kon gaa yi loolu moo fi nekkoon tey seen émission Arena Hebdo ah. di leen di 4 octobre 2021 comme ni ma leen ko waxee woon rek alterné bu jot lay am tey nag ñu amoon ci ñoo xam ne wax dëgg yàlla làmb compté na ci ñoom ëllëg parce que ñu ngi ci yoon ñu ngi wane seen bopp ndax booy fay kenn dootu ko présenté kenn ci lig ci làmbu Sénégal non wax dëgg yàlla parce que mu ngi ci wane boppam ci tournoi yu mu mën a doon ci niveau niveau bu nekk mm. ndax laa preuve li ko mujjee mooy drapeau chef de l'État bi nga xam ne moom la mujjee gàddu mm. kon kooku defe naa nekkul ku ñu présenté ti ah kon kooku yaakaar naa ëllëg làmb mën na compter ci moom te boo xoolee bi ñu débuté yàggul ndax koo xam ne bàcc seras moo daan jàpp ci loxo bi nga débuté làmb yàggul ndax bàcc bi muy toj làmb ak léegi nekkul lu yàgg lool lool lool ndax maa ngi wu bi mu daanee ji mbay la ba bët set kere bi mu ñëw sàndaga mhm. di wër Sandaga fa la ma fekk gaa yi topp ko ñoom Gana Diop di ko tëggal Gana bu ndondol maa ngi koy mhm. nuyu bu baax a baax mooy tëggal booy ñaar mhm. ñoo ñoo bokk dëkk may nuyu waa ndondol yépp encore une fois bàcc nekk koo xam tamit ku baax la maa ngi koy ziar bu baax a baax di ko ñaanal ndam di ko ñaanal tamit wér parce que tamit vraiment def na ci tey ay nit loo xam ne ci làmb am na solo trop te lii booy fay di wax dafa am solo nit ki da ngay am reconnaissance nit bu la defalee dara ci rawatina mbaax dee ko wax ndax yàqul dara olof na sukkutéréer yóbbu say oom xaw ma nag yaa ngi dégganteeg bàcc wala déggante wu ngeen waaye daal xam naa ne ah boo ko defee moo war boo ko deful moo war wóorewuñ ci dara waaw day ko jox àddiya mm-hmm. waaw uh-huh. ndax bàcc moom uh-huh. nit la ku nga xam ne bi mu ci tolloo lim ko war li ko waroon def na ko bàyyeegul sax làmb waaye nag dafay am foo xam nit ki su fa tolloo mm-hmm. mooy loolu fils de Batlen tamit nekk xale boo xam ne macha allah moom tamit bi ñu ko découvrir ci làmb yàggul parce que ku la ne 2006 laa yaa ngi dégg manqué na ay ay ay fan muy xale boo xam ne dafa doon làmb ci biir këram ndax ci wëy juram ak ci côté rakku papaam yànda ak yooyu mais loolu lépp li muy tekki mooy boo bëggee nag def carrière yaay jóg entraîné ji uti mm. doole mm. ndax booy fayee suma papa mm. wala fils de partenaire suma papa doyul la lay def yow ki nga doon yaa koy wutali sa bopp ca biti bu ko defee nag sa booy jur man a ànd ak yow gunge la jox la la nga xam ne moo lay yóbbu ca kanam kon ñoom macha allah maa ngi bég ci yéen ñëpp ah di leen ñaanal jàmm di mm-hmm. kontaan ci yéen vraiment di nuyu ñi nga xam tamit ñu ñu suivre à travers le monde du ma leen fàtte ñoom ñëpp fan si club maa ngi leen di bëggee ñoom Jiga ñoom Cédric ñoom Saliou sar ñoom Grand Lay ñoom Pape Ndiaye ñoom ñi maa leen di bëggee ah fu ci waaye mën a nekk rek maa ngi lay bëggee di ñaanal ñëpp jàmm 100 pour cent Babacar wala tamit fan fan si club Equivox ak Babacar tamit du leen fàtte ñoom Adama Ndiaye ñoom ñëpp maa ngi leen di béggee ñoom gaa yëpp ñoom Awa Diop Touba Awa Diop bu Balla Gaye maa ngi koy béggee soxna Asi Diagne depuis Nouakchott tamit Asi Diagne bu xarañ loo moom tamit maa ngi koy béggee bu baax a baax a baax di sama jigéen depuis Mauritanie maa ngi koy béggee mais ki ma solal tey doomu Bawal la ñu bokk benn dëkk Aliou ah Aliou nekk fële ca marché Thiaroy yaakaar naa fa mu nekk ak fi ngeen dëkk yéen sorantewul marché Thiaroy la nekk foofu ñu jaay fa ñu jaay yére yi ca biir ah bu fa duggee laajte Aliou ku fa bëggati yére bu rafet booy fay yaa kii dem leen seeti Aliou mu jaay leen ko mm-hmm. yére yu rafet lay jaay yu góor Aliou Sall di doomu Bawol dëkk dëkk bu ñuy wax Mbomboy ca côté ak yaay maak moom ñu bokk dëkk moo ma sol lii ma sol ah te chaque jour da koy def Aliou yàlla na jàmmam yàgg yére yu baax lay jaay mais sama téer bi Rimka Couture du ma ko fàtte hmm? ak mbay tamit sama benn téer nekk fii benn tali moom tamit maa ngi koy nuyu côté robinet laasana mbay di doomu Bawol di nuyu képp ku ñuy suivre xam nga balde yi du ci mën a ñàkk parce tamit ku la neel ci naaj bi yaa yaa ngi moo tax ñuy ziar gaa yëpp ñaanal ñëpp jàmm di balu ñëpp fa àq Rim Gaz Couture bu ñu àndee daa yàgg Saliou Khoule Zik FM maa ngi koy bëggee hélas moo woon ca technique ba maa ngi koy ziar série eh, mama hélas série mama ay bu ma ko fàtte. arena ebtu niwut abisa gol sénégalais arena ebtu niwut